gañaay yu njëkk yu jeu concours CAN 2024 bi Lonase taxawal jaare ko ci plateforme bi di lonase.bet jébbal nañu ko seeni boroom toll ci ñeenti parieur yu Lonase war a yóbbu sa Côte d'Ivoire ngir teewee Coupe d'Afrique des Nations ba ak bépp charge première partie tirage bi mooy bii nii nga xam ne quatre gañaay yi ci lañu génnee deuxième partie bi danañ ko tirer muy ñetti gañaay yu ci war a génn ci quart de finale yi moo am encore yeneen ñetti gañaay yoo xam ne ci final bi la ñuy génnee bu ko defee nag l'ONAS lépp la jël en charge jëndal na leen ay billets yóbbu leen ci CAN ba fële Côte d'Ivoire seen transport diggante aéroport ba ci seen hôtel l'ONAS da koy jël en charge hébergement mooy euh, fa ñuy fanaan ci hôtel yi ak yooyu l'ONAS da koy jël en charge bu ñuy dem di seetaani match LONASE da koy jël en charge LONASE parieur bu nekk gagnant bu nekk jox na la sept cent cinquante mille nga mu doon say frais ya ngay dépenser ci période boobu ngay nekk foofu. LONASE point bet gannaaw coppite yi ci nemmeeku te jur mbégte mu mag si direction bu LONASE ak mboolem parieur jëfandikoo ko nag euh, doonu lu jafe. ci internet ngay jaar pour mën sa jouer bañ ko lancé ba léegi. gis nañ ci ay ndam yu am solo ñu am ci nag mbégte directeur général am ci mbégte ba benn mu changé plateforme bi daal di ko def mu doon direction direction bi madam Ndaw moo ko jiite. beneen bi itam mooy ndam yiñ ci am tax na ba nga xam ne ci at bu bees bi dañu bëggoon a sargal suñuy parieurs parieurs yi nga xam ne ñoom ñooy xëy di jouer ci lonase point bet jeu concours CAN 2024 bu lonase point bet fukki gagnant lañ ciy tànn mu des yeneen i tirage 1000 francs rek ngay teg boo tegee bokk ci concours bi bu ko defee xëj na ci yii di ñëw tirage yii di ñëw nga bokk ca ñu jël la en charge